asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dalak jàmm ci xibaar digg bëccëg bay bàyyeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Koli ñu seeti bopp xibaar yi. Gambia Radio and Television Service mi télé bu mag bu ñu gën xamee si GRTS seeni kilifa yi ñoo yegg ci néegu député bi pour wane report bu ñu bindee jëmale ko naka ci koppar gu ñu nar a jëfandikoo ci atum 2021 bii ñu nekk. ba tey ci bopp xibaar yi kilifa yiy saytu lu jëmee ci wàllu wécciteeb jaww ji si biir réew Gambia bi ci alxames bi ñoo dajee pour waxtaan sart ñu nar a tëral ngir mun a saafara jafe bu réew mi di jànkuwanteel jëmale ko si wàllu wécciteeb jaww ji ba tey ci bopp xibaar yi banxaasub tasub xibaar bi génnee xibaar lu jëmee si wàllub tàggat yaram ñoom ñoo lëkkaloo ak banxaasu bayeekoo ci Switzerland ak kilifa yu nekk ci biir réew mi pour waxtaanee mbir yu jëmee ci wàllu tasub xibaar mbokk yi li ya doon doon bopp xibaar yi ñu taaxirlu bu ñu dellu see ñu yaatal xibaar yi ñu fi jot am ci bëccëgub tay bi suñu xibaar bu njëkk mu ngi dem nag si Gambia radio and television service muy télé bu mag bu ñu gën a xamee si GRTS seeni kilifa yi ñoo yegg ci néegu di député bi pour wane report bu ñu bind koppal goo xam ne nag ñu ngi ko nar a jëfandikoo ci atub 2021 bi ñu nekk mbir yi nag mu jëmee ci seen wàllub liggéey boobale xibaar nañ ci teewlu Biram S Diop mu gën ñu koo yaatalal. Gambia radio and television services muy GRTS démb di ajuma demoon neen si penc mu réew mi nag benn kuréel bu nga xam ne ñoom neen sant ñu gis ne. ñee war a mën a nekk di lijjanti lépp lu nga xam ne moo nekk aju si wàllu am ami koppar bu nga xam ne si bopp ne liggéeykaay nguur gi ñoo ko a mën a seet am ami koppar bi ni mu nekk di demee yoon ak tam àggale ko suñu tax ba ñoom ñi war ko war a mën a nekk liggéey suñu fàttali ko na si gannaaw ñoom na dañoo baaxoo di topp jëm a gëstu ñi ne seen liggéeykaay naka la nekk di demee ndax ànd na ak sàttab nga xam ne réew mi moom leen daal di digle si biir loolu nag ku ñu xamee si Abdou MK Touré moo nekk directeur général bu GRTS moom nag leeral na ne ñoom nag taxawaay bi nga xam ne moom leen taxaw nag am na si ab yéene bu ñu xam ne fas na yéene pour gis ne dinañ jëm a xamal askan wi réew Gambia si 2019 maanaam ñaari at si gannaaw. lépp nga xam ne moo nekk yore ni koppar bu nga xam ne si boppam ne ji artiste naka defoon nañ ko mbaa amoon nañ ko tam ñoo ko war a mën a nekk di ko fësaleen rek te ñoom suñu bàyyi xel seen liggéey mooy war a mën a nekk xamalee nit ñi muy informe éduquer muy jàngale entertain di aju tam si fànna muy bëggale ak tam si fànna muy yeete mu ne ñett yi nag muy ponk yi nga xam ne GRTS moom la nekk di liggéey te nag seen bëri bi liggéeykaay bi tam seen programme yi yëpp dafa nekk ne noonu la nekk di demee mu ne kon ne GRTS jamono jii ñoom na si li nga xam ne leen baaxoo di jëfandikoo seen fànn liggéey mooy ab koppar bi nga xam ne muy wàllum jokkalante kaay yi nii muy télécommunication système yi nekk fii si biir réewi Gambia lu ñu baaxoo di war a mun a fay seen koppar yi la ñu baaxoo di jënd muy boobu koppar nag nar ko war a mun a dugal si DRTS nu mu nekk di demee mu ne nag loolu moo nekk seen njël benn fànn muy ameekaay koppar bi ñaare bi tam ni ñoo war a mun a amee nag yeneen koppar nga xam ne léegoo léegi dinañ ko war a a amee si béréb liggéeykaay nguur gi te mu ne loolu yëpp nekk na teq-teq bi nga xam ne indil na ko ñoom seen liggéeykaay bi nii di GRTS te nag loolu nag dina ko gis si seen report maanaam seen kayit bi nga xam ne fësaloon nañ ko si kanam bi muy National Assembly Select Committee on public finance moom di Madina Daaratu bu mu dal yaatalaat bu baax a baax mu ne nag dëgg la jiyaate pour gis ne dinañ jëm a matale liggéey waaye nag de ñàkk yenn bagage nga xam ne mooy que bagage mucc ayu nga xam ne jamono ji nii moo toll ak jamono nag amuñ ko beloo tax na léegoo léegi ñuy am jafe-jafe si yenn liggéey yi nga xam ne dañ ko baaxoo di ko bëgg a nekk di ko matale te ne loolu dina war a mën a àndal pour gis yi noonu lañ ko nekka di ko defee te mu ne jaar si nag seen njëlbéen liggéey nag mooy jéem a mun a fisale lépp nga xam ne réew mi ñu ko dal di ko soxla mu ne waaye nag léegi lu ñu am nag jafe nga xam ne moom la ñu jànkuwanteel mooy si fanam muy waruwaay mu ne waruwaay nag jafe-jafe la bu nga xam ne ñoom ne si boppam sonnoon na leen lool te tax na ba ñoom ñi nag mënuñu am yéene si yéene bu nga xam ne bëgg nañ koo liggéey pour askan bi war a mun a gis seen bopp si seeni i liggéey mu dala yaatal ne mu ne beneen bi nga xam ne moo gën a sonal nag jaatees mooy ñu fa nekk di liggéey den bëri lool te ne lu nekk di liggéey mu nekk lu nga xam ne lu néew la mu ne lii mu ngi ko joxoñee baaraam nag ñu nga xam ne ñoo fa nekkoon bu njëkk amee woon jamono bu nga xam ne yaa jame moo nekkoon jiite réewi Gambia mu ne gis na nag suñu bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey si jaate te fekk weer bu nekk ñu leen a fay loolu nag si boppam dafa néew lool si liggéey bi nga xam ne moom moo nekk di génnee si biir GRTS mu ne nag dëgg la si fànn muy am am bi nag daanaka lu nag nekk na jafe nga xam ne moom nekk jànkuwante te suñu bàyyi xel ba moom leen baaxoo di desal ñu gën ko xamee si balance daf lee néew néew bi a mën a matale sax yeneen yéene yi nga xam ne moom leen nekk bugg nekk di matale mu ne léegi mu am nag yeneen xam ne si boppam ko leen war a a fatt loolu nag nekk na anam bu nga xamee ne moom demoon nañ fa ba war a mën a sàkku ab yenn yaatal te yaatal bi nag ñu loon ñëpp war nañ koo nekk di leen ko jàppale ba war nañ koo nekk di leen ko fësalal mooy seen yéene auditos maanaam ñi nga xam ne ñooy baax war a mën a ñëw pour jëmmal lijjanti nag koppar bi ni nga ko dali bindee ndax noonu la nekk di amee te nag loolu mu ngi baaxoo di béykoo si ab béréb bi liggéeykaay bi ngeen a xamee si Augustus Prom mu nekk muy benn liggéeykaay bu nekk fii si biir réew yi Gambia ñu ne suñu bàyyi xel bu baax a baax si wàllum insurance bi nga xam ne si boppam ne moom la ñu baaxoo di war a mën a jàppee ne saa yu nga xam ne nag muusi wax dem ne war a mën a am GRTS te fekk na mu nekk aju si wàllum yàqule ni ko war a mën a baaxoo di ko jéem a séentoo nga xam ne loo si ne bi nga xam ne am na si wàllum bagage ni ko fa war a mën a nekk di ko dugalee koppar toll na si ñaar fukki million ak ñeent juróom benn téeméeri junne koppar réewi Gambia te mu ne loolu nag bagage yooyu nga xamee si a mën a xeema si bagage nga ne si biir na si juróom-ñeent fukki ak juróom-ñetta juróom a nga xam ne dafa am a xamee la ñu gis ne dañoo seet ni ñu a a di ko safara mu dali yaatalaat bu baax a baax si yeneen xam-xam nga xam ne am na ko mu ne suñu bàyyi xel bu baax a si GRTS tam ñoom nekk di demee si fànn muy wàllum matériel lay seen liggéey am na nag bu baax a baax yokkute yu nga xam ne am nañ ko fa si ay at yu nga xam ne si boppam ne weesu na waaye nag am na yeneen jafe-jafe yu nga xam ne ba léegi ñu ko nekk di ko sooxee Halifa Sallah moo nekk chairman bi si National Assembly Select Committee on Public Enterprise moom nag yaatal na bu baax a baax ne mu ne suñ sukkandikoo si public enterprise ak muy luwaa boobu nga xam ne moo dalee samp muy bii fa suñu kuréel lu ko tax a jóg mooy lépp lu nga xam ne moo nekk liggéeykaay nguur gi lépp lu nga xam ne moom la ñu am si fànn muy koppal moo xam mu nekk yokkute mbaa mu nekk daanute foog war nañ ko war a mën a la askan bi pour askan bi tam ñu xam naka la mbir mi nekk di demee mu ne loolu nag nu mu war a demee nag mooy su nekk nag am na yokkute bu nga xam ne am na muy si fànn muy profit ak lépp lu nga xam ne moo nekk daanu te su tam am na tam war ko war a mun a kayit yu nga xam ne moo war a nekk si biir report bi mu ne waane mu ne su nekk nag kayit bi nag si bopp nag ambut lépp lu nga xam ne moo war a mun a jaar si yooyu façon liggéeykaay dina jéem a tey xel bu baax a baax si ñoom ñi nga xam ne ñoo war a mun a ñëw pour gestu yi façon jëm kanam ba loolu tax na jamono ji nag muy boobu kayit nag tegaale ne ko pour gis na ñoom ñi dinañ baaxoo ko gestu baax a baax balaa londi ñaar fukki fan juróom ci weeri janvier at bu nekk nii. bu ñu bayee ko ci xibaar bu bu nañ dem seeti nag kilifa yi seeti lu jëmee ci wàllu wéccité jaww ji ci biir réewu Gambie bi si fan yi nag ñoom ñoo am ndaje pour waxtaanee yenn sart ñu nar tëral pour mun a saafaraal jafe-jafe gu réew mi di jànkuwanteel jëmale ko ci wàllu wéccité jaww ji surtout ci noor gi ñu nekk ba tey boobu xibaar nañ si ànd ak Biram S Diop mu ñu ko. amoon na ab fani njàngat bi nga xam ne amoon na te lu ko taxoon a jóg mooy ñi nga xam ne si boppam ne ñoo nekk liggéey si jëm kanam askan bi mooy civil service organisation fu ñu gis a mën a xamal lu baax baax seen wàllum xam-xam lépp lu nga xam ne moo war a nekk aju seen wàllu am ami koppar ni ko war a mën a nekk sàmmee pour gis na nag loolu gaaw a yàqu ak ni ko war a a jaarale si anam bi nga xam ne faa war a mën a jur nag njëriñ jëmmal ko si askani réewi Gambia ñaareel bi tam ni war a mën a yokk ne wàllum xam-xam nga xam ne nit ñi dinañ ko war a mën a am pour jëm a xamal askan bi lépp nekk nekk di aju si fànn mu yàqule jaww ji ñu xamee ko si climate change reporting te nag lii yëpp dafa bokk si jàngat bi nga xam def nañ ko jamono jii nii pour jéem koo tënk si lépp li nga xam ne Gambie dina ko war a mun a méngalante ak yeneen réew yu nekk si biir àdduna bi. kee moo fàtte ko ak koo faaw na maanaam bokkal si ñi nga xam ne daal di sos muy mbootaay bi di Green Up Gambia moom nag yaatal na si gis-gisam ne warugal la pour ñoom seen façon mbootaay ñu war a mun a seet ñoo war a mën a yokkee xam-xamee seen i ab liggéeykat pour gis na seen liggéeykat dina war a mën a àndoo ak wàllum yëngu-yëngu jaww ji war ko war a mën a xamal askan bi xam tam ni ko war a mën a yaatalee pour kenn ku nekk si ñoom ñooñu mu xam ne warugalam la mu war a mun a gis ne dina war a mën a aar askan bi ak si lépp lu nga xam ne mooy war a mën a indi yàqule si wàlla mooy jaww ji te mu ne loolu lu muy amee rek mooy yokk xam-xam bi nga xam ne nit ñi am nañ ko jàngaleen yéen métier jàngaleen xam-xam bi nga xam ne mun nañ koo jëfandikoo pour gis ne duñ war a mën a yàq lépp li nga xam ne si bopp ne mun na moo tax wàllum jaww ji jaar fa ba mun a nekk di soox mu ne kon lool su nekkee ne dem ne war ko mun a saafara dina tax ñu war a mun a àggapal gàncax gi gën a mun a nekk di bëri lool fii si biir réew mi mu ne kon jàngat bi nii am na yaakaar ne dina war a yokk baax baax muy xam-xam bii nii ndax su nekk leen nit ñi nag xam ne ne seen dëkkuwaay dañ ko war a aar dañ ko war a mën a sàmm dañ war a mën a ñëw pour tutu yenn garab seen gannaaw mbaasa si àll bi dinañ xam ne que warugal la pour ñu gis ne képp ku warugal ñëw pour jéem a yàq mu yooyu façon àll nga war a seet noo koy war a mën a nekk di ko taxawalee mu ne moo tax jamono ji nag mu amoon koppar bu daal di béy ko si Global Environment Facility muy jeef projet bi te yëkkati woon nag koppar war a toll si juróom fukki junne koppar réew yi Amérique pour war ko war a mun a dimbale mbootaay yu nga xam ne ñoo nekk si askan bi ñu war ko war a mun a nekk di commencé def seeni wàllum liggéey Fatoumata Touré bay ko si ab mbootaay bu ñu xamee si Great Institute moom nag wax na si gis-gisam ne warugal la pour ñeneen ñi nga xam ne si boppam ñoo bokk di liggéey comme ñoom ñi ñu war a mën a xam su koppar amee ni ñoo war mën a nekk ko dépassé te mu ne dépasse boobu nag mooy ñu xam fu ñu ko war a mun a dugal ba butut bu nga xam ne dugal nañ ko fa ñu war ko war a mën a bindee pour ëllëg ak sibir su nekk ne ñu leen jox muy boobu koppar ne ñoo neen nar a war a mun a ñëw pour gestu koppar boobu nga xam ne moom lañ joxe ndax àgg na si bërëb boobu nga xam ne moo ko taxoon a jóg ñu war ko war a mun a génne pour ñu gisa ko seen bopp ñu xam ne ñoom ñu nag liggéey bu nekk di jooti ne moom la ñuy def si biir réew mi loolu leen nekk di def te kon nag mu ne réew bu mel ne comme Gambie dëgg la nag amul koppar bu bari te nag réew yu bari yaakaar nañ pour ñu jàppale leen mu ne kon wóoru gox la ñu war a mun a matale lépp lu war a mun a indi mu bind suñu gën a mën a nekk di rafetee mu ne dëgg la nag am na réew réew yi nga xam ne si boppam de ñu nga jëm a yàqule si fànn muy jaww ji te nag li ko gën a waroon a mooy garab yu bëri ñoo baaxoo di daaneel te mu ne garab yi nga xam ne moom la ñoo daaneel am na jafe-jafe yu nga xam ne mun na ko àggee nit yu dëkk si boobu façon dëkkuwaay British High Commissioner maanaam ku toogal réew yi Angleterre fii si biir Gambia moo nekk David muy Belcroft moom nag wax na ne muy mbootaay yi nga xam ne si boppal ñoom leen dalee booloo pour ñu war a mun a am bii façon ndaje ñaax na leen pour ñu def seen kéem kattan pour gis ne dina war a mun a matale lépp lu nga xam ne moom la leen jàngal si jamono ji nii te mu ne su nekkee jàngal ne leen rek dinañ war a mun a xam ne que xam-xam boobu nga xam ne moom la leen xamal dinañ ko war a mun a jëfandikoon nekk ñoom ñi préparé na pour gis ne réewi Angleterre dina jàppale Gambia su lu gën a xamee si polices maanaam mu nekk muy wàllum jaajaar wàllum terrorisme te nag loolu dina war a mun a indi bu baax a baax muy wàllum yokkute si xeex bu ñu xeex muy yàqu-yàqu jaww ji. ñu ne nag ndaje bii di COP 26 nekk na ab nangutoo bu nga xamee si bopp ne muy mbootaay réew yi àdduna bi ñu ko defoon pour ñu gis ne dina war a mun a woote muy bépp mbootaay bu nekk si àdduna bi ñu war a mun a booloo pour jéem a xeex képp ku nga xam ne mun na moo xajamal mbaa mun na moo yàq sax yenn si jafe-jafe yu nga xam ne moo nekk di am si fànn mu yàqu-yàqu jaww ji moo tax ren jii nag ñu war a am nag meeting mu war a commencé si njëlbéen fan demee fukki fan ak ñaar si weeru novembre si at bu nekk ni mu muy atum 2021 te mu war a xëyee fële si réew bu ñu xamee si United Kingdom muy Angleterre ndaje bi nag dina war a mun a boole muy borom xam-xam yi ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey si yooyu réew rawatina sax muy mbootaay yi nga xam ne mbootaay yu am solo la pour war a mun a nekk di xeex lépp nekk di indi wàllum yàqule si jaww ji. weeri juin 2017 ku nekkoon njiite réewi Amérique si boobu jamono muy président Donald Trump moom nga xam ne que waxoon na ne Amérique nag bëggut pour ñu war a mun a bokk si nangutu boobu ñu xamee si Paris Agreement maanaam ñoo war a mun a génne lépp lu war a mun a ñëw pour jëm a aar. mu yàqu-yàqu jaww ji mu ne moo tax jamono ji ñu gisoon na nag loolu mu nekkoon daanu fee bi nga xam ne su boppam ne adduna bi daanu woon nañ ko si fànn xeex bu ñu xeex muy yàqulee fànn jaww ji mbokk yi bu ñu bàyyeekoo ci xibaar boobu nañ seeti banxasub tasub xibaar yi génnee xibaar jëmale ko naka ci wàllu tàggat yaram ñoom ñoo lëkkaloo ak mbootaay bu bàyyeekoo si Switzerland ñu naan leen Mission 89 ci alxames bi ñoom ñoo am ndaje ak kilifa yu nekk ci biir réewu Gambie bi jéego bi naka ñu jël ko pour waxtaanee ndaw yi yëngu ci wàllu tàggat yaram te ñu leen di jaay si bitim réew boobale xibaar nañ ci ànd ak Biram S Diop mu gën ñu ko yaatalal mbootaayu taskati xibaar yu nekk fii si biir Gambia muy Sport Journalist Association of the Gambia ñoo amoon nangutoo ak réew yi Switzerland seen benn mbootaay bi nga xam ne moo nekk mission 89 mbeloo tax ne barki dembo di alxames ñu amoon ndaje bu lu ko taxoon a jóg mooy lépp li war a mun a boole ñoom ñoo di taskati xibaar yi ak ñeneen ñi nga xam ne si bopp ne borom xam-xam ne si fànn muy tàggat yaram ñu war a mun a xeex lu xamee si sport trafficking maanaam lépp lu nga ne mooy tax ba nit ki nga jëlee ko si biir réew mi te fekk na football moo ko taxoon a jóg nga yóbbu ko bitim réew di ko jëfandikoo si naka sulu noonu wala boog sax su mu waroon a am si fànn muy football am mu ñàkk ko war a mun a am lu ko war nag muy fitna ak jafe yi nga xam ne si bopp ne jaarale nga ko si fànn sarta te loolu na mu nekk lu nga xam ne de jaarut yoon ñu ne moo tax jamono ji nag muy mbootaay bii nii di mission 89 ñu yëkkati woon seen bataaxal pour xamal askan bi ne dëggal nag préparé nañu baax a baax pour war a mën a gis ne dina war a mën a dakkal lépp lu nga xam ne moo war a mën a sabat loolu façon yenn ñaawteef kare bes bi nag gannaaw bu mu faloon jël kàddu di Moussa Cissé moo nekk njiit bi si Sport Journalist Association of the Gambia moom nag wax na ne jafe-jafe bi nga xam ne moom nekk di waxtaan jamono jii nii nekk na ana bu nga xam ne di préparé leen pour war a mën a gis ne képp ku nga xam ne moo nekk agent maanaam moo wax ne moo bëgg a ñëw pour jëlee na football fii si biir réewi Gambia yóbbu ko bitim réew ngir war ko faa mën a jaay pour footballeur boobu war a mën a footballeur muy yeneen façon footballeur kaay yi ñoo nekk jafe-jafe nga xam ne moom la nekk di indi si jafe-jafe muy fànn football fii si biir réew yi Gambia mu ne kon nag dëgg la yaatal boobu ak bëgg bëgg boobu nga xam ne moom la ndaw bi am pour bëgg a dem nag footballeur bitim réew ñu bëri di ñoo baaxoo di jëfandikoo yooyu façon ngi muy jafe-jafe nar ko war a mun a teg muy football kat bii nii te mu ne loolu su dem na ba gis ne ñi nga war a mun nañu seet ni nga ko mën a nekk di ko am xeexee dina gën a yombal bu baax a baax muy wàllam football bi gën fii si biir réewi Gambia nar a dem nag football si biir bitim réew. moo tax jamono ji nag ñu am naka nangutoo bu def si diggante ñoom ak immigration département maanaam ñu amee muy wàllum kayiti réew mi football autorité si ak mbootaay bi ñu xëy na xamee si natib ñu gis ne nag lii ñu seet nu ko war a mën a nekk di ko dakkalee Babacar Camara nekk communication director bu Gambia Football Federation bi moom nag yaatal na si gis-gisam ne war a mun a jëlee nag ndaw te fekk na mu ngi yëngu si wàllum tàggat yaram jëlee ko fii si biir réew mi Gambia yóbbu si bitim réew nag nekk na jafe-jafe nga xam ne ñu bëri ñu ko baaxoo di ko jànkuwanteel te ñu bëri na ñu ngi baaxoo di gis ne ñu ngee nekk di koy jooytu war na mën a jooytu boobu nga xam ne moom la nekk di ko jooytu daanaka nag munaguñoo a gaaw a am nag mu yéen a saafara ndekte loolu dafa nekk si ana bu nga xam ne du leen nekkee fii si biir réew mi Gambia si wàllam moomu Tulay Jawara moo nekk njiit bi si National Agency Against Trafficking in Persons muy NATIP moom nag wax na bu baax a baax si li nga xam ne moo nekk taxawaay bi nga xam ne jamono jii nii Gambia Football Federation yëkkati nañ ko dugal ko si jëm kanam yi di jéem a tere nag ndaw nar koo jëlee fii si biir réew mi yóbbu ko si biir bitim réew mu ne suñu bàyyi xel bu baax a baax yenn taxawaay yi nii nekk na taxawaay yi nga xam ne war nañ koo xeex lool pour ñu gis ne ñu seet ko mun a nekka di ko dakale Fodé Gassama nekk commissioner bu migration bu Gambia immigration department moom nag wax na bu baax a baax mu ne nag dëgg la benn luwaa bu nga xam ne si bopp ne fii si biir réewi Gambia moo ñëw pour war a mun na fii si biir réew mi yóbbu ko si bitim réew waaye nag mu ne taxu de ñu ngi préparé pour jëm waxtaan ñoomi neen ñu seet ñu war mun a yëkkati ab benn luwaa buy war a mun a ñëw pour tere képp xam ne mu ngi baaxoo di jëlee nit fii si biir réew mi nat ko a nga xam ne moo ko aju si fana fanamu yoon mu ne kon nag loolu suñ ko waxee moo xam mu nekk footballkat bi mbaa mu nekk ku nga xam ne moo dem pour liggéey mbaa mu nekk keneen ku nga xam si boppam ne soxlaam taxut koo jóg waaye keneen moo ko nara a ñëw di ko yóbbaale. su suñu xibaaru mujj dinañ seeti ndaw bu toll si ñaar fukki at ak ñaar moom la ñu wax ne naka dafa feebar pooju càmmoñam bi moo am problème mu tax naka ah, ñi nga xam ne ñooy seeti wàllu wérgu yaram bi ñu ne naka dafa soxla ndimbal ci nu mu gën a gaawee pour dem faju ji sa bitim réew ndaw boo xam ne mu ngi toll si jëmmi jamonoom pour njëriñ ay waajuram muy wuyoo ci Modou Cissé moom la ñu wax ne naka si jamono ji mu ngi am naka feebar jëmale ko naka ci wàllu lupp càmmoñam bi mu tax naka docteur yi si report bu ñu génnee naka bàyyeekoo ci seet boo xam ne naka def nañ ko ci luppam gi ñu ne naka dafa soxla pour ñu defaraatal ko luppam googu mi maanaam dañoo génnee lupp gum amee def fa beneen lupp te lii naka doon na mbir boo xam ne naka mënuñu koo def ci réewu Gambie bi sa bitim réew lañ ko war a defee feebar boo xam ne naka docteur wax nañ ne naka xale bu góor bi am na ko ñu ne naka yax woo xam ne moo nekk ci biir lupp weñ yax bi moo dee ndax dafa nekk ci place boo xam ne naka deret ji mënatul fa romb loolu naka tax yax bi màgget bam sababu naka yax bi damu ci biir yaram gi feebar boo xam ne naka dal na xale bu góor bi ñu ngi wax ne naka yombul pour ñu gis ko waaye am ko waaye naka ñu ko dee gën a am ñu ngi toll si fanweeri at ba si juróom fukki at bu ñu seetee si gëstu yoo xam ne naka japanis yi def nañ ko ñu ne jàngoro ji naka daanaka lu toll si ñaari junne ak juróomi téeméeri nit ba si ñetti junne nit ñoo di am façon feebar bi ci àddina si te lii naka daf dee mën a nekk ci benn at bi mag bu góor ci Modou Cissé mi nga xam ne nag moo am jàngoro ji te muy wuyoo ci Matar Cissé mu ne moom naka rakkam ji ba mu ñëwee daf ko laaj lan moo lay métti mu ne rakk ji naka mu ne dafa am ku ko dëgg si jamono yoo xam ne naka ñu ngi tëddoon ci biir jumaa ji doon nelaw mu ne ba ko waaj ji dëggee naka foofu la méttit bi commencé ñu jëlee ko foofu naka yóbbu ko ci dëkk papaam pour naka mu faju ji Casamance mu ne sa foofu naka la ñu defaraat tànkam bi waaye naka loolu taxul woon mu tenee Matar Cissé continué di wax ne bañ koo jëlee foofu dañ ko yóbbu sa balangaar pour ñu jàng tànk bi waaye naka fekk na mbir mi yéeg na ci biir bi ñu jëlee ko foofu yóbbu ko sa bansang pour ñu jàng ko sa foofu la am te ne tuuti mu xewoon si atum 2018 mu ne naka ba loolu weesoo moom Modou mu ngi doon yëgaat ay métti ci yaramam bi ndax si jamono jooju mu ngi doon def liggéey bu métti ci kawam muy liggéeyub daan dooleem mu ne si jamono ji nag amuñ lenn lu ñu mën a def pour yóbbu seen rakk ji mu dem faju ji sa bitim réew fexe nañ lu ñu man yëpp waaye si jamono ji nag ñu ngi dellu ginnaaw ci kàddoo mu ne si jamono ji moom xamatul sax lu moo xelaat wala lu moo def lu moo ñaax askan wi rek mooy ñu jàppale ko pour rakkam ju góor ji dem faju ji Modou Cissé moom mu amee feebar bi mu ne mu ngi ñax askan wi pour ñu jàppale ko ndax moom naka bugg naa te ne pour mu njëriñ waajuram mu ne waajuram yi defal nañ ko lu nekk si jamono ji gaa yi amatuñ dara loo xam ne naka mun nañ ko koo defal looloo tax naka mu ngi ñaax askan wi si jamono ji naka yenn garab yu néew la am yoo xam ne naka loolu la dee naan pour mu fay naka li nga xam ne mooy métit bu mu nekk di yëg si yaramam bi waaye naka wut mu ngee ñax askan wi pour ñu jàppale ko ci nuñ ko munta jàppale ngir mu mun a dem faju ji sa bitim réew mu ne moom daal bugg na moo wér pour mu njëriñ waajuram feebar bu Modou Cissé nekk di jànkuwanteel si jamono ji lu ci gën a bare naka duñ dee gaaw a am faj te naka daf dee sababu waaye mu laago waaye naka lu ci mënta nekk ñu ngi ko ñaanal naka pour mu am faj ci num gën a gaawee. mbokk yi li doonoon xibaar ñu leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatal yi ngeen di si doon ànd ak Xadijatu Koli di jaajëfal ci ànd bi di leen ñaanal ngeen yendoo jàmm wasalaam.